New York, ko ko def ci moom valeur yi nga xamanteni mom la société bi soxla ci mom doomu Sénégal boobu noonu ëllëg mën na nekk acteur boo xamanteni dafay contribuer ci développement wu Sénégal mën na nekk ëllëg jàngalekat mën na nekk ëllëg ingénieur mën na nekk ëllëg médecin mën na nekk ëllëg avocat bépp métier bu mu mën di ci exercer Sénégal mu am compétence yi ak xarañte bi ba war koo mën a def maanaam mu jural ko njëriñ jural it Sénégal njëriñ donc ci gàtt ci gàttal donc. programme bi mën nañ koo tënk maanaam ci doomu aadama waaye bu loolu weesoo leneen aussi li ma ci jàngat ci wàllum programme bi aussi mooy lu aju ci wàllum njàng ak njàngale ndax nee na tey jii dafa fas yéene suñu doom yi ñu teel leen jàngal li nga xamante ne moo di anglais suñu langue nationale yi ñu boole ko ci système éducatif bi ak li nga xamante ne moo di numérique ak informatique nga xam ne doomu Sénégal dinañ leen waajal ëllëg ba ñi nga xamante ne ñoo yóbbu ëllëg ñoom ñu mën cee bokk mën a apporter seen contribution

ba nga xamante bépp doomu Sénégal gox ak gox goxaan boo mën ci ki dëkk département ba nga dëkk di nga ko mën a am université boo xamante ne lépp loo bëgg a jàng ci àdduna am nga filière pour jàng ko fa. donc boobu weesoo ñu xool aussi lu jëm ci wàllum pàcc ak faj ndax li mu fas yéene def li mu bind ci programme am mooy que nii département bu nekk bëgg na mu am hôpital bu mucc ay ba bépp doomu Sénégal fépp foofu mënti gi nekk feebar bu la mënti gi ñu mën laa fa nga dëkk ca département ba doo France di fa faju doo dem États-Unis di fa faju doo Maroc di fa faju doo Tunisie doo fen fenn di fa faju waaye si sa bir dëkk ngay fajoo bu lolou loolu weesoo itam lu jëm ci walu institution yi dafa ne bés bu ko yalla denké rew mi lim ci fas def moy li nga xamante japp na ni liggéey bu rafet bu am solo la Sénégal yi seqoon ko ñu di ko wooye assise nationale lolou lu bëgg appliquer pour équilibrer les institutions nga xamné président de la république du doon ki nga xamante ne mooy buum di bumi

di leen sant di leen gërëm di leen jaajëfal di leen jox rendez-vous ba